ah. wax ma. waa ñëwal nii waa ñëwal. ci kaw non ci kaw fii. ba dem ñëwal taxaw nii nee na. waaw. yaakaar da ngay dugg da nga war a dugg si waaw. ah baax na ci de ndax ak bi yëpp. ah man damay wax nga topp leen ndànk rek daaw booy jël ko de ndox mi. Hey, boy, don't move, don't moo ma tax de pacax pacax ci ndox mi ni mooy laay ba jigéen ndox mi moom boo filmé wul wane ko gars yi xam. mais ndox mi bari na de. Ça, c'est les jeux de ramasser le sang. Reste tranquille, calme-toi. J'ai envie d'abord, avant de penser à l'argent, je vais ramasser tes 10 enfants. D'accord Respire bien et tu es bien maintenant, ok Maintenant, je veux savoir. Oui. Est-ce que vous dormez de foyer, hein De foyer, quoi. C'est ça. Mais tu es sain et sauf. Alhamdulillah. Ok, voilà, merci. Et il faut remercier tous ces gars qui voient là. <laughs> Il y a frère Omar, ça fait trois fois, dis-moi, frère Omar Touré, dis-moi wax dina la may deux cent, dis-moi ndax teg. non tey di nga am deux cent tey moom di nga am lépp deux cent sax. assis-toi rek alors xool. eh gars yi bàyyi leen yi waay. bu ma génnee ci pêche bi. allez jógee fi waay allez. Thank you. waaw. bu soobee sama bopp laa wër nii de.

am doole boo kii yëngu la mu ngi tàng. mu ngi jëlee daal na am. seen appareil nag waaye góor ay nit. ber bu ndóor ay ber bu ndóor. délen ko délen ko. dindi daal li dindi daal li balaa moo commandé dindi ko lépp.